jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyu nañ leen am kontaante ak mbégte euh, comme niñ leen koy defalee saa ne gannaaw naam programme làmb actuellement euh, dañ ko suspendre ba jusqu'à nouvelle ordre waaye du ñàkk ñuy dem ci seeti champion yi nga xamante ne jot nañu bëre bëre am ci ndam te it bari na ñoo xamante ni euh, làmb am nañ ci ñoom yaakaar ñu commencé ko tey ci Modou Body bi nga xamante ne keroog journée PABC event fële ci arène nationale moom moo fa bëri woon ak bébé garga ñu bëre mu daan ko par décision arbitrale parce que da ko mujj génnee par point gannaaw loolu bébé garga am na lu mu ci waxoon moom it am na lu mu ci waxoon dañu koy bàyyi mu nuyu mbokk internet yi su ko defee ñëwee weel waxtaan bi moo du nuyu naa la baax di la siyaar. waaw asalaamaaleykum Baye Djily maa ngi lay fay ginnaaw baatu on subilahi mina seytaan rajim hmm. maa ngi nuyu képp ki may seetaan di nuyu sénégalais yëpp. di hmm. nuy samay fans di nuyu samay nit. di nuy ñëpp daal di nuyu képp kuy dégg sama baat rek maa lay nuyu di la siyaare bu baax. Hmm. waaw di la baalu ak te di la baal. oui. Modou euh, lan moo la dugal ci làmb. waaw lamb rek comme comme comme comme d'habitude rek ñu si dugal mbër yu bëri moom si dugal man ak xale aussi xam nga di ko fooye quoi xam nga séeréer moom bëri moom day ne ci yow. Hmm. ko judduwaale. Hmm. di ko fooye ñëw Dakar tamit di ko fooye mais bi ma ci concentré woo carrément mooy bi ma ñëwee Dakar quoi. Hmm. franchement bi ma koy fooye am nga benn affaire di nga ko fooye ba mu la doole. ci laa ci laa ci concentré wu. ma ci concentré wu jusqu'à présent aussi. rëccu wu ma ko nag vraiment. Euh, ci ban dëkk ban dëkk nga ci saano. man Ngoundiane. Ngunjaan mu ngi nekk région de Thiès. Hmm. waaw. Euh, nga cosaanoo Ngunjaan sa bis bi nga njëkk a bëre làmb yaa ngi koy fàttali. bien sûr man Ngunjaan laa bëree nag. sa premier combat voilà defee non ay kore mba ay ay mbapat quoi. Hmm. waaw defee même bi may jàng sax maa nekkoon suñu mbëru école. Hmm. bien sûr maa nekkoon mbëru école ba bëre dama ko mënoon quoi mais boobu nekkuma woon mbër mais euh, manoon naa bëre. waaw. mais bu ma ci concentré wu carrément mooy bu ma duggee Dakar nag. Hmm. waaw parce que bi nga ciy dugg amoon nga difficulté ak parents yi wala da nga dugg rek ñu accompagner la nangul li nga bëggoon doon. non waaw parce que man man moom sama parents yi mosuñu am benn problème ak man. ci côté boobu hmm. noonu. Hmm. waaw parce que affaire de foofu góor la te et puis xam nga moom du bañ lamb quoi. mais concentration bi ak dóor yi ak yooyu la ñu maire bi ñemewul woon loolu quoi. mais à part loolu kenn mosuma ko tere. bañu ñu bëre mais dóor bi lañ nangoo. ay dóor yeeg yooyu xam nga bëri séeréer moom xamuñu woon bëre dóor. par hmm. exemple lañu xam suñu bàyyee ba nawet bi passé nii ñuy bëre. Hmm. waaw yooyu loolu ñëpp daan bëre jamono boobu. Hmm. waaw ñu ñëw ci séeréer ñemewul ñemewul dóor. waaye mhm. Modou mii dafa mel ni séeréer bu bugg dóor la ñaata kaaw nga am ci làmb. Euh, am naa huit kaaw. huit huit yoo xam ne dama leen dóor ñu ñu dóor la ñu kaaw. limal ma. non bi. non quatre. quatre. huit victoire laa bëgg wax quoi. Ah, mais victoire quatre KO quatre jël. quatre KO quatre jël. kan euh, na euh, ki ma mujjee KO rawan laa KO. rawan man. rawan bu Texas. rawan dëgg bu dóor mu KO bu ko daan ñaari yoon. Mm-hmm. KO Papa Sow bu parcelle. Mm-hmm. parcelle dóor dóoraat parcelle dóor dóoraat. Mm. KO bu bu bu Fass mm. Mbaaw. Mm. bu ñoom bu fit. Mm-hmm. kaawaat quatrième bi. Euh, bébé amoon je pense. bébé amoon euh, nga def neuf nga am euh, huit victoire. ñaata défaite. benn défaite. benn défaite. waaw kan moo la daan. kii moom moo daan. Rakuba Seras. Rakuba ci Seras. waaw boo daan sama. Aliou Seras. caatu Seras. caatu Seras. Euh, Tyson Gris Bordeaux. Tyson Gris ah. ah, Bordeaux. waaw. xam hmm. nga kooku waaw mais xam euh, lam moom histoire la histoire moom bu wax rek waxal kii bi quoi. Hmm, bu fekkee kooku maag moom bokkatuñu yoon sax. parce que hmm. maag moom du ñu benn. kooku gis nga mais nit ku la daan da koy wax ñi nga daan nga wax leen quoi parce que li ma def mu tege. waaw mais kooku nii nii moom a daan mais soo ma ko doon jox bokkuñu sax du ma jël ay mbokam duñ duñ duñ ko. duñ ko dugal si man. mais du ñu gis benn retard boo xamante ne am na ci Modou Body. masque nag ngeen baal ñu mais. waaw metti na sama yii lay jàpp. Hmm. Euh, ñu gis benn retard boo xam ne Modou yi am na ko ci làmb. Hmm. actuellement li nga preuve yi ngay def ci làmb. macha allah nga jékki-jékki toog ba benn moment nga retard mën naa ko tuddee retard parce que retard ba nga dem hmm. ba jël bébé garga sa combat yaak bébé garga keroog gis ngeen làmb ju nu mu demee retard bi lan la. waaw mais xam nga du parce que yoonu ndaw moo moo yeex rek te kom li mag yi wax yoon su soree. ndaw koy Mhm. comprendre nga mais retard li moo mën a wax retard mooy mbër yi ñoo mën a nanguwul jël parce que fekkee kii daan kii bëri di daan maa ngi bëri maa ngi daan maa ngi am public xam nga mhm. man ni mbër yu mag yi dundee laay dundee yàlla xam na ko si saal yi bu baax laay entraîné damay jënd ay billets ay ay quatre cent mille cinq cent mille mhm. xam nga te ay mbër yu bëri duñ ko jënd gars yi di ma supporté ne sama ginnaaw am na ñoo xam ne bàyyi jiidi suñ suñ demee lamb rek man maay bëre même roi des arènes buy bëre te bëriwuma kenn du dem tey la ñu toog man dama am sama public bopp comprendre xam nañ ma aussi xam nañ ka tey ma yor maay bëri daan ay victoire par manière. Hmm. du ma ñëw rek lambatu wala arrière damay duma ba nga kaaw ma daan. te la amateur loolu lañ soxla. Hmm. mais promoteur yi tamit gars yi nanguñu bëri ak man. loolu la te man aussi du ma dem ci kër kenn man su ma bëree pare ñi ma nekk nii ñoo may jàppale toog fii. Hmm. demoo ci kenn mais li may def muy bëre maîtriser naa ko te mën naa ko. ku ma jëlul amul lel du doole du dara du ay qualité ku ma jëlul da nga jël loolu rek moo wax ji. boo mënoo wax sa catégorie ci làmb ci ban catégorie nga bokk. non man man instant yi xam nga su ma nee man benn mbër mënu ma mënu bañ ku ma bañ dégg ma ragal mooy man naa bëri ñëpp. non mais am na catégorie boo bien sûr am na catégorie ma bëgg mais catégorie boo xam nga tey lam moom ñëpp xam nañ ko soo fi tuddee ay nit dañu naan ay di ay lii mais ñi may bëreel nii yow ñi may bëreel nii ku mm. kuy dépassé ay plus de cent et ngay bëreeg moom kon kenn mënu ma bañ si lamb mais bëgg naa xam catégorie bi Modou Godi bokk. non man man daal ci li ma bëgg. li ma bëgg ñu bëre ak man mooy ay Garga Mbossé numéro un ay Moussa Ndoye. non mais Modou Godi. ñooñu laa soxla nag day xam lekkam. ah mais ñooñu laa soxla ñoom bëri Garga barki démb. waaw mais doo ko daan. noo ko daane. dama ko dóor ba mu ba mu mu jënd glace ba daan ko. non non daanoo ko parce que arbitre moo lañ. waaw mais loolu gang amu fa. waaw mais Modou Lo mooy roi des arènes. la am ci ci décision arbitre. Modou Lo du jeex waaw mooy roi des ma ni am nga ndam. mais loolu ndam la loolu ndam la ndam ak. am ndam ndam ak bii ndam ak bii ñoo yem. noo ko amee baax na. Gris Bordeaux Balla Gaye nan nan la ko daane. loolu victoire la victoire drapeau bi maa ko yóbbu sama kër yëkkati sama loxo loolu victoire mënu ko kii loolu amul lu ñuy wax. dañuy bëre 20 minutes. léegi daan booy boobu daa tax. ah mais poulet poulet poulet boo sa Moussa Ndoye ñooñu duñ seen morom ko man sama doo wax loolu parce que Modou Bodi combat bi nga mujjee bëre yaakaar naa ne yeggul ci ay 4 millions 5 millions matu ko. waa mais mat na million rek. te million million te et puis làmb xam nga amul prix fixe. nga jóge fii dem fee. Moussa di toll ci ay nama baal sax ci kasem tudd romb na 20 millions. waaw mais mais loolu des dara man ay waaw man loolu laay loolu laay gis quoi parce que dama bëgg ñu ñu xool parce que ma kon maa hmm. sant yàlla bu baax. Hmm. kon donc xam dafa war a dafa jot ñu ñu jox ma ñooñu. sama xarit ñëw na. voilà macha allah tegal ni ay ca sama jigéen. Mm-hmm. xam nga ma la. Mm-hmm. kon dafa jët ma jóg ma ma bëreeg ñooñu. Mm-hmm. barke Seydina Mohamed loolu kenn mënu ma ëppaloo ñu ma dara ganuñu ma ñeme lu métti. te li ma def ay Moussa Ndoye ñii li ma def li tax ñemuñ ma jël parce que xam na dama leen di weer. non non mais Modou Moussa Modou Bodi boo bëggee combat bu neex da wax xale yi nga xamante ne. nga ay morom ci làmb. <laughs> Ah, <laughs> a ñemewoo tudd say adversaire te làmb nekk sa métier. Ah, nga bëgg tuddal waaw mais euh, tudd man xam nga man wax naa la man am na ñoo xam ne su waxee tamit duñ ma Hmm. nga jël. comprendre comme ñan. non man man daal yow yow lamb ji xam nga la ci lamb bi lañ xamante non mais xam nga Modou soo bëggee lamb ji neex nga am ay adversaire di bëri da naan catégorie bii diw suñ ma ko joxee ma bëri. mais la wax noonu dama daje ñoom stade ñu indi ay mbër ma leen di daan xam nga tey laajuma ku ba pare mu indi ko ñu bëgg écrit Garga Mbossé est-ce kooku bokk na ci bébé Garga bokk na ci ñi ci gën a doon xale a doon xale pare neexul bëreel neexul affaire gis na combat bi nu mu demee te dama ko weer keroog mais ah mais dama ko duba ba ñemeetul jël benn risque génn ma fa saako def ma dara. arbitre di ko avertir rek te lamb comme li ma la victoire noo ko amee baax na. non mais Modou defal ndànk bébé Garga dafa am quatre avertissement nga am trois. waaw kon Garga ah, bébé Garga. temps bi temps bi temps bi jeex. ñu jox la victoire. kon da ngeen a bëri ah, temps bi jeex. bu fekkoon da ngeen a yam même même avertissement alors que arbitre bi day jël. combat bi match nul lay doon garga benn garga actuellement ci moment boobu ci combat bi coach bi mu ngi koy def si di ko di ko wan ni carrément daf la war a génn lan parce que xale la combat bi jàpp naa ni parce que bàyyi na xel ni euh, sax am nga trois avertissement ma ne roi des arènes laa la wax ñoom ñoo ñu feete kaw ñooy suñu mag dañu am ay ay ay victoire ci ay avertissement ñu yóbbu seen drapeau loolu victoire la loolu Garga Mbossé mu ngi sama calendrier dama ko daan su ma koy wàññi bu may wàññi ñi ma daan dama ko ci boole mënu si dara. loolu kay kenn waxu waaw kon nag dama jot ci ñoo xam ma may ma sens. mu baal ma mais bi moo la tudd Garga Mbossé waxul say wax parce que Garga Mbossé mi ngi jox avance Garga Mbossé kañ la gën a bëre sa Garga Mbossé la mujjee bëre. waaw mais booba léegi bëreewul. mais pandémie bi moo tax. waaw mais fekkee day jeex incha allah dañ ñaan yàlla mu jeex. non Modou bu fekkee bëgg nga ñu waxtaan non non grand contre petit bi da nga koy jëmale ci keneen soo bëggee waxtaan bi neex. man daal dama bëgg ñiy seetaan xam ni carrément. am na gëm-gëm boo xam ne mu ngi ci yow mais alors nga wax say adversaire wax fi nga jëm ci làmb. barke Seyna Mohamed man Seyna Mohamed a dóor. barke Seyna man Seyna Mohamed rek laa yaakaar man du ma wax lu ay waxantu jël nit pour bëgg a bëree dama def ba ñu xam ma. yow nii yow mii yow gàkku de baax na. waaw yow mii kii booy dakaar yow mii euh, ñooñu dañ ma ñemee dañ jël ñooñu dañ ma ñemee jël. ay booy Dakar ay gàkku de yi ñooñu dama leen di wane ñooñu ñemuñu tax man giita ngaas wala ñu xeex ak man billaahi duñu benn ñooñu du ñu benn parce que dama bëgg combat boo xam ne dañu mën naan voilà comme ni nga ko waxee kii du moroomu bëri waa ñu xool. xam ne ah, am fu ma teg sama bët. nit nam soo bëggee dem ci kaw. Hmm. soo bëggee dem suñu nag nii ñu ngi ñu ngi ci cinquième étage soo bëggee dem ci kaw foo nga jaar première deuxième. Hmm. comprendre nga ma la. Hmm. yoon bi mais pour mu ñu xam li ne si man comme ni nga ko xamee say morom yëpp Sénégal yëpp xam kan mooy Modou Body foo ñu ma ci ñoo xam ne dañu naan du samay morom. ba du ku ko man sa morom du ma képp ku ma am loolu laa ku ma mën na ma wone su arbitre suufee na ma wone man naanu ma ay doom te li may def man naa ko te ay qualité fekkee ay qualité amul benn mbër ci mbalaama ji ku ma ay qualité wala ku ma a weer amul affaire day jeex ñu ñëwaat ci géew bi nañ hmm. dem. depuis bi nga bëree ba léegi promoteurs yi ñun lay contacter. waaw promoteurs yi xam nga bi ñu bëree ba léegi saison presque dañu saison bi dafa waroon tëj. kàggu bisaab bi neex na de waaye. waaw saison bi dafa waroon tëj. Hmm. comprendre nga. te nee naa promoteur tamit man mënuma di bëre ay combat yoo xam ne damay dem rek daan. comment dama bëgg man daa sax su amee combat dama bëgg a daan mais dama bëgg ay comme ay combat yu xaak laa bëgg ñu xool ñu gis xool. ah booy tarkindaa yaa ngi fi. nga fekkee jël na combat bu xaak su yaa ngi fi xale naa combat fekkee jël faas yee fi. fekkee jël naa parcelle a ngi fi. voilà fekkee na ay ndaanaan xam ne. mais nañ nañ kii ñooy bañ amul man man benn koo xam ne dama ne mënuma bëre ak moom su pare rek pare naa. même fekkee am na booy bi ne suuf ñeme ma na dëggal boppam rek mais wax ci ay signature ñu ñëw nga def ni bébé garga di di kii ñemetoo jël benn si ñëngoo jël ku man waxuma yooyu da bëgg ku dëggal boppam li ma wax mu wax ko duma ko man sa morom duma arbitre gën suñu saa nga bëgg wax bébé garga ah, du tapet am di ko wax parce que lam di fii amul ko xamul bébé ngaaka bébé garga du ngaaka xam na règlement bi bu amee su ma ko jiitalee avertissement mu xam temps bi su jeexee maay am victoire man du ma yàkkam si sama combat victoire ma ko amee ba fekk moo ma jiitale noonu wallaahi fu mu nekk ma fekk c'est la première fois am amee victoire noonu. mais jël nga coup boo xamante ni da nga ah, wàcc. ah mais lan moo tax égaliwu ma. mais coup bi dal na wala dal. non ma la man duma ko man sa morom duma mooy soo mënee rek duma ma. loolu olof boobu yëpp xam nañ hmm. man su ma la mënee moom duma la xaar. aw ma benn copain mbër mbër du ma seet aw ma benn affaire mbër man si sport wala laay def. Hmm. xam nga li may wax noonu ma sam yi dundee mbëri mag yi yàlla xam na ko noonu lay dundee li ma wax sama doom ji Mambaas naan ko pour pour faire être professionnel il faut professionnel. c'est ça ah, loolu loolu mooy problème bi loolu mooy dëgg. promoteur ci moom xam nañ ma. nawloon ah. nañ ma te man affaire yi gars yi nekk nekkuma si. Ah, bas TikTok. wallaahi. Mhm. waaw. Euh, mais actuellement ban écurie nga nekk euh, ci làmb. maa ngi écurie Sénégal. bu nekk Medina. mais école de lutte Sénégal bi mm, yan champion ñoo fa ne. non am na ay champion parce que gars yi tey ren saison bi nu mu nu mu kii nii rek am nañ. am nañ xamoon fi mbër mu mag. am nañ quatre combats am nañ am nañ quatre combats quatre victoire nii nii nii. kana kana fa bëre. Euh, am na ñeneen ñaari booy yu amoon combat mais combat yi gis nga ni lam di demee kii bëri na fa euh, Moussa Ndoye Moussa Ndoye numéro 2 bëri na fa daan. Hmm. Euh, kii bëri fa kii bëri na fa daan encore waaye nu mu kii a lay tur bi lay fàtte quoi. d'accord léegi. mais écurie Sénégal bi nga nekk kan mooy tête de file. man man tête de file laa de xam nga tey mën naa dem écurie xam naa Gris Bordeaux ñëw ba koñ. non da ngaa bëggoon da ngaa jël cër ci làmb rek moo tax dem. Sénégal ah, mais tête de file man këréew ma écurie bi de dafa am ñu fa nekkoon voyagé toog. Mm-hmm. comprendre nga. Mm-hmm. biñ voyagé toog tamit ku gën a gën a jege rek gën a yey. Mm-hmm. am naa fa ay ay ay ay jeunes yoo xam ne ay champion lañ samay morom lañ mais comme écrit affaire du écrit affaire écrit bi boo mënti dem entraîné woo moog zéro yem. Hmm. waaw mais su ma amee combat jël samay nit ñoo xam ne ñu ngi si écrit parce que épique la quoi gis nga ay ay Moldo ñoom ñooy daje di liggéey ensemble. Hmm. et comme noonu la ma amee combat adversaire bi ma am dinaa xool ñu nekk ñooñu ma jël leen liggéey ak ñoom. waaw léegi ñu ñëw ci bërki démb li nga xamante ne jot na xew. Hmm. say moroomu mbër. préparé combat ba jour yi ñu jékki-jékki na leen làmb amatul gis-gis boobu en tant que mbër tey nga musoo ko dund wala boo ko dundoon comme mbër yooyu nan la lay def. non dundoon moom da ngaa rëcc moom. waaw mais dundoon naa ko sama bii daaw la woon bi da nga fàtt sa combat bi ma bëre la 11 juillet bi waaw am xam nga ci première vague la woon. mais loo si mënti dégg moom. Mhm. ah métti na quoi. Mhm. comprendre nga na parce que nit ku nekk rek da xool su nekkoon yow. Mhm. da xool su nekkoon yow quoi. comprendre nga. parce que di war a préparer combat ba mu des.

discothèque yi ñu ngi ñu ngi kii euh, restaurant yëpp kon donc suñu demee rek cible rek na du am loolu dafa am lu mu ñuru quoi tamit. Mm-hmm. Mm-hmm. mais dañu am ay njiit ñoom ñëpp gis nañ ko parce que lu ne fan kenn du ko ji. Mm-hmm. mois ñu jël décision boobu def ko ñëpp la métti. képp kuy mbër di tàkk ngem di xam li mbër di laaj métti na. mais mënoon si dara jiite xam nga état kenn mënu xeex ak moom jël na seen décision mais war nañu xoolaat décision décision mu gën a rafetee nuñ ko jëlee nii quoi. man de loolu laa ko gisee. décision bi daal kontaanoo ci. non non franchement. dem nga arène nationale vacciné wu. non dew ma woon mais vacciné woon naa prime ci vacciné vaccin yi bi njëkk vaccin yu njëkk yi. Hmm. demoon naa première jëloon naa première dose quoi. Hmm, deuxième bi kañ nga koy jël. deuxième bi ci mois bi laa ko war a jël sama kànd mu ngi gàll. Hmm. waaw. Euh, tey sa combat ak Bébé Garga dañ ci dellu si waat tuuti Bébé Garga dama dem koñam. Mhm. gis mu baare koñ bi yëpp. Mhm. amul fu nit mën a dugg si. Ah. combat bi jeex ma gis sa koñu bébé garga loo fa doon wut. non waaw bébé garga dama demoon foofu noonu dafa am li ma doon euh, lijjanti foofu man moom fa laay dem. déedéet loo fa doon lijjanti. kon kay yow. yow mais bu ma demee avant combat ba est-ce sa tànk. non teg ma fa xam na xam nga xam moom lamb la rek. lamb moom ñun dañuy tegtal rek naan def leen nii moytu leen lii. Hmm. comprendre nga. Hmm. man Medina laa dëkk mais Ouest Foire laay laay laay laay yeewoo. Hmm. Liberté laay liggéeyee. comprendre nga. man fu ne laay dem nag man bu ma fa demee laa xam ne sax Bébé Garga fi la dëkk parce que dama fa dem gars yi ne ma ki nga doon bëreel fi la yi ma xamee booy ne ma Bébé Garga fi ci ginnaaw. Hmm. mais gisante wuñu sax ma nekk ci moo benn moto quoi. avant combat bi demoo këram. non non kon. ah mais peut être day jël ay mesures barrières am rek ci côté kii xam nga mbër yi moom te ñun moom ay séeréer lañ lépp ñun ñu wax dañ koy def. Hmm. loolu moo tax peut être mu xam loolu. mais hmm. ñi mu indi noonu xamante nañ. xam nga xam nga Bébé Garga moom franchement man mu ngi sa ginnaaw mu ngi sama ginnaaw yàlla na ko yàlla jàppale aussi mu ñëwaat rek. parce que la comprendre euh. mais daan bëri nañ daan naa ko man ci kanam laay xool quoi franchement. Mm-hmm. waaw mais donc yàlla na ko yàlla rek. ndeysaan moom amaa moom benn problème waa métti am naa fi ndam ci kawam. Mm-hmm. waaw on est. Euh, yàgg nañoo waaj daje bi xëy na yàlla suñu borom dogalu ko euh, kontaan naa bu baax ci dalal bi ndax xam naa ni actuellement maa ngi séntuwaat beneen combat Modou Body am adversaire bu xaat bu xat waaw man waaw man moom man moom franchement bàyyi ji li man loolu laa ñaan yàlla mhm. barke Seydina Mohamed combat yu ponkal xam nga ci ponkal li ma ko waxee keroog ci ponkal li laa bëgg xam nga nañ ma gars yi may sens ma bëree parce que amul lenn lu mu mbër di man a jaay mhm. du palmarès du du ay nit du du correct du leneen man exemplaire la am ñoo xam ne wax naa la ko ñu xam ne man suñu duggee stade man maay bëri gis sama supporter xamuñu naa fa ay soxna man man ñuy wax lami nami war na fa am ñaar nami des jeunes filles xale yu jigéen yi maa leen nuyu yéen ñëpp képp may béggee rek comprendre nga man mm. waaye di loo ma sama bopp te et puis comme ma la wax ñu tax man ñu topp ma mm. parce que mbër boo xam ne mm-hmm. nga ma la mm. kon donc gars yi ma war a jël ñu xool man nag nekk ma fi pour benn promoteur malgré que xam nga promoteur yëpp ñu may tëgg mais li ma bëgg mooy ñu jox ma ci combat yoo xam ne ay combat soxla ñu ñu kii fekkee amateur yi bëri lañu bëgg bëri ak incha allah rabbi ma lay jaajëfal bu baax a baax a baax kontaan naa bu baax ci waxtaan bi. waaw kon hmm. xam nga mu ngi noonu rek man tamit parce que ku ku bàyyi itam yëpp ñëw seet si la. Hmm. je pense que amoo fayam te yow sama waay kon affaire yi fi ko jàpp la. kon hmm. continuation rek lañ lay wax. dañ lay dañ lay suivre di la seetaan. comprendre nga. waaw man nag su loolu weesoo tam bëgg naa remercier samay nit ak lépp fekkee. may nga ay ca parce que fi nga ma fekk fii ah. mën naan voilà fi ma fekk fi nga fii ah. fii mooy mooy mooy madame Fall. xam nga mm-hmm. sama waa ji nga xam ne mooy jàppale muy maas kooki képp xam na sama diggante ak moom. Mm-hmm. sama combat bi passé un million la ma may un million la ma jox ay mbër yu mag a ngi fii kenn du leen jox sax cinq cent mille. mooy ma un mm-hmm. million. comprendre pare woo ma ne ma lan nga soxla. kii kii ma nekk fii bitikam. mooy mooy mooy deuxième femme. ndeysaan muy bébé Binta. xam nga capuchin la et puis gis nga vaisselle yu amul fenn lay jaay. ndeysaan macha allah donc moom. nit nit soo bëggee sa jëkkër. Mm-hmm. du question dama ko bëgg lii rek da nga koy da koy jàppale ci ay nitam. ndeysaan moom bëggul lu lu ma métti te moom tamit daf ma jàppale mënoon na jëkkër jàppale na ma mm-hmm. moom tamit daf ma jàppale jox ma xaalis fekk ma def ma woon ma ma fekk ko fële si blaza. waaw laa ko fekk mu jox ma xaalis barke Seydina Mohamed. te chaque weer daf may fay. nu ma liggéey dara. damay dem entraînement ñëw fii pour toog fii rek pour kii am. Mm-hmm. parce que si ñoom laa bokk. kër gi xam man ñaari kër la am su ma nee fanaan Liberté su ma nee fanaan fii. dëgg la ku ma góor doo ma jàpp naan dina su bëggee day bari pa. Mm-hmm. ma leen sant ñoom ñëpp ak personnel bi fii liggéey yëpp parce que moom càq-càq yi léegi ñu fekk la fi. Mm-hmm. ku mel noonu état da war a jàppale parce que dañu bokk ci Sénégal. xam nga li ma la wax. Mm-hmm. koo xam ne da ngay fay ay ay càq ay soixante mille ay cent mille chaque jour. loolu état da war a jàppale. te ñooñu dañu yor ay kër. personnel bi ngay gis fii ñi doon nettoyer ak fi la ñu liggéey chaque yàlla xam na ko xam nga kooku soo nekkee ak moom kooku état dafa war a jàppale. Mm-hmm. voilà loolu daal maa ku ma limul rek. xam nga nga xam dama jiw maa ngi sant sama waa dëkk aussi waa Ngunjaan. Mm-hmm. yëpp sama waa écrit ak sama benn copain ku ñuy wax Sam. Mm-hmm. ak magam Roxya. tamit sama waa kër la ñëpp daal maa ngi ziar ñëpp. di bëgg ñëpp di leen di leen baalu di leen baal di sakku ñaan ci ñëpp nag. képp kuy séeréer ñoo séeréer dafum comme tout le monde. xëpp roof noo séeréer rek am bugg a damtaam parce que xam nga ajee ma doon maa ngi dalem te bugg am ma fad kon mi hooya seeɗo fof toddamtamo mm. ndu koto refna par que lam ka jigi réalité mm. voilà ino mom langol saɗarero ma i damtange comme rek yega ho in kam gewan rek mm. inchallah gewan a fiyo fikano wa mi jare a ñëpp na wasna fa ñëpp xaq aussi ni sako añan na tout le monde jaajëf gaay jërëjëf wasaare làmb gis ngeen Modou Body laa dalaloon mu nekk xale boo xamante ni keroog bi ma ko gisee ni mu bëree combat am ak bébé garga laa ne kii ou tard ci làmb dinaa ndax cër gi nga xamante ne jox na ko adversaire bi cër bi nga xamante ne jox na ko bis bi dayo bi bi mu dugg see nga xool ko xool corpulence bi nga xam ne vraiment champion la ci làmb tey tànk bi mu teg bu ko teggiwul fépp fu ñuy dégg champion ci làmb dina ko dégg te loolu lañ koy ñaanal mbokk yi di leen jaajëfal bu baax a baax a baax encore une fois di sant sama cadreur euh, kàggu nga xamante ne vraiment lu mu jëlut baaxul euh, di ko jaajëfal bu baax a baax a baax di ko masawu ci xeeru digg bopp boobu nga xamante ni daloon na ko Jurbel ba def ko statut ñu bari daal ba jili baaxoo mais loolu ak liggéey bi ñoo ànd dem làmb ñu dóor la xeer ci digg bopp bu toj ñu ñaaw ko yooyu yëpp ci liggéey bi la bokk ñuy wax ni ñun ñëpp rek famille lañ làmb ñun ñëpp famille lañ mun nañoo xuloo mun nañoo xeex waaye ñoo xastante bari na ñoo xamante ne ay tubaab yu ñuul lañ noonu rek laa ko mën a waxee parce que suñu sañoon tey làmb def loo xamante ni bu ëllëgee dañ naan xoolal wax naa leen duñ ay nit wala ay nangam nangam sàmmata ña yooyu amut parce que complexe weesuwul tey euh, étranger jóge bitim réew ñëw fii ki jóge bitim réew ñëw wàcc Sénégal nga jënd tey yenn boisson gazeuse yi jox ko mu naan foofu la ëppee waaye tey gis nga ni ñu seetsee Modou Body ñëw mu indi lii bisaab la jus naturel la fii lañ ko defaree ci réew mi. fii la ñu ko bayee defee ko fi lii bisaab la aussi tamit fii lañ ko bayee defar ko fi nga indi tey koo xamante ne euh, bitim réew la jugee jox ko ko mu naan nga ni ko lii lan la mu ne la lii bisaab la wax la lim ko composé ba mu naturel ba mun ko naan loolu dina ci kontaan. ngala dañu ko jàpp bañ a jéggaani ji lenn bëre dóor fépp la am fépp foo dem am na bëre dóor. waaye bëre boo xamante ne da ngay gis bu di dugg si ci làmb seex béjjën bi yor laar bi takk sengoor bi euh, ngay gis ay décor yoo xamante ne vraiment ay décor la ci làmb ñoo ñu xale yi tey nañ leen jàppale surtout état nañ gën a jàppale waat xale yi nañ gën a taxaw waat xale yi waaye bu bëre taxaw bu bëre amul xale yi dañuy defi leneen duñ defi leneen parce que xale yi seeni i waajur rek lañ bëgg a jàppale. bu làmb amul dañuy dem defiwaat leneen gañ seen vie parce que ay borom jom lañ ay jàmbaar lañ ay borom fit lañ parce que boo boo gisee ay xale yoo xamante ni saa su ne ñu ngi xeex ñu ngi fayit ngir am teral seeni waajur état daf leen war a jàppale. mbokk yi loolu nag dafa nekkoon loo xamante ni mënu ma koo ñàkk bañ a jàllale di leen jaajëfal bu baax encore une fois di leen sant di leen gërëm di leen jox dig daje ba ëllëg si beneen xew-xewu làmb. jërë ngeen jëf.